Comme nous l'avons dit, ko waxee fii réew la euh, le ministre conseiller maire de la Médina Bamba Fang. tey gis nañu l'opposant farouche de tuddee ko Ousmane Sonko y a ay euh, divergence avec la loi la justice a une première condamnation ci diffamation ak Mame Mbaye Il a une condamnation corruption à la jeunesse ci digganteem ak benn masseuse te loolu a dafa une désobéissance civique collaboré collaborer la justice sénégalaise démb ñu gis ko ci discours boo xamante ni def na ci France 24 li ci marque marqué sénégalais moi, mooy dafa am ay hallucination manipulation yu mu yëkkati te du dëgg déjà jëmale ko ci Sénélec dañ ko privé électricité alors que Sénégal yëpp xam nañu la coupure était générale ba ca top nee na tey Macky Sall daf ko séquestré ci biir këram ba fuwe ay droit ñu gis ci silence société civile bi gis ci silence opposition bi ban jàngat nga am ci discours Ousmane Sonko par rapport ak condamnation bi ak tey barricade bi ñu barricade buntu këram Sénégal dafa n'a naafeq politiciens yi tourné nous na ñëpp pas. naa fekk weesuwul na ñëpp président boo bëggee mu neex bàyyil ñëpp bokk kon yow ku wax loolu mérité on président parce que y a ni ni tey boo comme président mën ngaa damm loxo justice il faut parce que man un bon président pour le Sénégal c'est celui qui respecte les institutions c'est celui qui accepte au moins la séparation des pouvoirs. mais nan nga mën a xamee pouvoir exécutif est en tant que président nga que la justice bi dafa pouvoir judiciaire justice bi moo convoqué Sonko ci ay problème parce que moom nit a jotee. joxe jugement bi nga ne président na diw bokk. kon loolu mooy président yaa ngi bëgg a wër àdduna ni président kon moom moom justice bu ko neexoon diw bokk. te yéen ñi koy wax ñu bare ba ngeen amee justice problème da ngeen a dem ak justice ba mu jeex Ousmane Sonko ci wax ju gàtt mënul nekk candidat mënul bokk. fi wax ci toll nii. fi ñu toll nii fi ñu toll nii il est condamné mënul bokk man li ma moy mooy bay bayal bi ñu koy bayal war nañ koo jëli bu yàgg yóbbu bay bayal gi da upp moko may muy génn ay France 24 ak wax lu ko neex du wax waxkatu deug té tamit Sénégal dafa am lu leen nax militant 3e mandat bi la Ousmane Sonko foogoon ni ay militant am lañu d'accord tay ku nekk riire sa parti comme que tay il était le mieux placé mo ci gëna ñaaw lamine mo ci gëna mëna wax ju upp te tey nee na troisième mandat looloo taxoon tey bu ñu baree bari tey dem au chômage ay Mimi rek ay keneen ñoom troisième mandat lañ doon xeex troisième mandat amatul dem nañu retraite Ousmane Sonko nag ñu doon ñu doon di xeex troisième mandat bi troisième mandat amatul loolu dégg déggatoo leen léegi ay militant cundung la desal te militant bi tamit ña ci ëpp gisatoo leen ñeneen ñi noppi nañu bariwuñu woon ñi opposant non au troisième mandat ñoo bari woon mais doon oppose doon ay opposant yu Ousmane Sonko yilifoon da da àndandoom la ñu woon pour troisième mandat ba am yenn société civile yi ci la ñu nekkoon ñeneen ci la ñu nekkoon mais tey Macky Sall nee na troisième mandat amatul kon wax jooju fay na léegi ku nekk léegi say militant nga desal te kaay ma xamul la nag gaañi mbiraas Ousmane Sonko la ñu xaada naa fekk yooyu di wax wër ko tu wër booyam yooyu di kii ñu di ñëw paa yeeg maire yooyu dañuy xaar ñu ne Ousmane Sonko bokkoo pour mu tayle leen ay nitam yéene wuñ ko sax jàmm bu ñu yàkkamti woon ñu yóbbu ko tey bu ñu sañoon tey ñu yóbbu Ousmane ñoo ñu fa toogaanu yëpp dañoo bëgg bu ñu condamné Ousmane Sonko mu dénk leen njabootam gi moo tax ñu koy toogaanu mais yéene wuñ ko jàmm te tamit na ci ñoo xam ne nañu xam ne ñoo mën ñoo dem kànna am na ñu fi tëjoon trois six mois avec sursis ak ñeneen jarul sax ñuy toogaan mënuñu ne candidat d' accord je crois que le président Macky Sall wax na ko ci entretien bi mu def euh, le monde nee na du mbedd bi du moom mooy décider qui bokk ak ku dul c'est la conseil conseil constitutionnel moom décide qui qui bokk.